alhamdulilah li rabbil alamin mbokk dañuy sant yàlla bu wër di gërëm sëriñ tubaa Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul mbokk yi yaakaar naa ne barki démb wala barkaati démb ñëw nañ fii wane fi ay image yoo xam ne nii képp kuy julit képp kuy mburit keroog soxol tooy na soxol métti na waaye nag ñun de ngi jéggalu waaye jubluwaay gi rek moo doon lii ñu gis tey ndax ay kilifa yu mat kilifa xam li ñu doon ci dëkk bi di yaakaar ci dëkk bi ci njiital sëriñ Abibu mu sëriñ Falilu ànd ak sëriñ Abdou moom sëriñ Abibu sëriñ Fallou Bousso ak délégation bu takk bu Touba ci kanam ak président Touba ci kanam di Abdoul Fattah ngir toppaat sunu tànk yooyu ñëw gisal seen bopp li fi nekk ñu ànd wër barab yi mbokk yi ñu am ci ay xalaat yu rafet nag xalaat yu dal xel loolu képp la ñu war a mën a indilaat nit ñi ndey ngir nu leen imaginer métti woon te jaaxal leen na seen xel dalkat ndax début du solution bi nii kon ñu ànd ak yéen rek ci marché gaar bi ñu jógee barki démb te xol yu tooy lool ñu ànd ci ak sum kilifa yii gannaaw bi ñu fi ñëwee di nemmeeku barab bi. surtout Serigne Habibou mi nga xam ne mooy kilifa Touba ci kanam ak mboolem ci tu bokk yi ñu àndal ñëw fii li waral ñëw gi nag mooy bu ngeen xoolee fan yi dangeen gis ci gisukaay yi. ay image yoo xam ne ci barab bii lañ ko jëlee ñi nga xam ne ñoo yor wàllu communication di sëñ Cheikh Amar mi sëñ Fallou Ndiaye dikkoon fi jël fi ay image image yooyu nag tasaaroo ba xaw yaatu lool ci àddina bi ñu bari nag biñ ko gisee ñu ñuy woo di woo sëriñ Habib mi di ma woo man mi di ci wax ñenn ñi di rafetlu lool dikk génn fi dikk ba wane ko bañ mën a xam ne di am na ngir mu mën fee jukk ñenn ñi yit di wax ne jàpp nañ ne image yu mel nii su amee Touba su ko génnee waaye la ci am solo ci noonu bañ tax nag ñu jug ñëw tey loolu mooy li ñuy wax mooy sëñ Habib li ko indi fii mooy ak mbooloo mi mu àndal mooy tubaa ci kanam da da leen itteelu lu du Touba lépp luy xewee ci biir tubaa ak Touba ci kanam war na caa jéem pexe ba xam lu mu cay man ndax man ra amin kum mun kawan ja boo ca delloo mhm. kenn ku ne daa am sa masoliya fu mu tàmbale ak ak fu mu yem lépp loo gis yonent bi sallallahu alayhi lépp lu ngeen gis te teguwut ci aw yoon mun kaw mooy lépp lu baaxut rek boo ko mënee dindi ci sa làmmiñ nga dindi ko ci sa loxo boo ko mënee ci sa loxo nga xam ne am nga kattan ak sañ sañ dindi ko nga def ko boo ko mënut nga wax ko ci sa làmmiñ nga ko ba ñëpp yëpp ko boo ko mënut nga ñaawlu ko naqarlu ko ci sa xol ba yàlla xam ne lii naqari na la ndax naqari gi naqari yàlla mu mel ne nag kon Touba ci kanam fi mu ciy tàmbalee mooy foofu ci de gis na loo xam ne jàpp na ne yëlluwut ak dëkk bi jaaduwut ci dëkk bi tey moom moo ñoo jaayante ne li nu itteel mooy lu jëme dëkk bi kanam ak lu sellal dëkk bi ak lu ñëwal dëkk bi ak lu aar dëkk bi kon lépp luñ gis loo xam ne jàpp nañ ne lii gënut ndax du sécurité du ab yaw diine bi taxoon sëñ bi sañ ci dëkk bi loolu lépp day dàqonteeg liñ gis kon war nañ cee jéem a taxaw dox ci suñ kam kàttan mu mel ne taxawaay boobu nag moom la sëriñ Habib am ak waa Touba Ca Kanam ba tax ñu ñëw ci barab bi seet barab bi di xoolal seen bopp ndax fan yii mbooleem image yi dafa dafa mel ne sax dafa mujj mel ne ñun ñii nga xam ne ñun ñi la ñuy tudd ne ñooy jëwi ñi dafa mel ne sax dañoo seetaan image yi ku ne man ku ne yónnee na ma vidéo bi boole ci vocal di wax ne lii waa ngeen cee taxaw ba nekk ba ñu nekk bitim réew sax waaye mu mel ne nag taxawaay bi dëkk bi dafa am nu mu tëddee ndax dëkk bi tiita français la boo xam ne sëñ Touba ko moom mën nañu tuur sëñ ku fi nekk sëñ Touba yaa ko yilif kon kilifteefu dëkk bi lépp tey dafa nekk ci loxo sëñ Muntaxa kenn sañu fee def baa nga wax fi baa nga de dindi lu dut loo xam ne da ci am ndigalu sëñ bi sëñ bi it daf koo seddale dëkk bi gannaaw bu mu ko fabee teg ko ci loxo sëñ dem Cheikh Abdoulahat muy jëwiñam ci dëkk bi mu fab Abdoulahat ka dénk ko muy meeru dëkk bi mu am ci responsabilité waaye kuréel yi dëkk bi it lu mel ni Safinatul Amaan ci lu mel ne yii di am te moom sëñ bi teg ko ci loxo ci njiitu sëñ Modou waaye muy loo xam ne it mbir la moo xam ne waa dëkk bi yëpp ñoo ko seq waa cee taxaw waa cee xalaat waa cee wax waa cee dox ba lu mel nii bañ am ci dëkk bi. kon nag ginnaaw boo xam ne ñëw nañ ba gis ko li ci sunu waa gàll ñun waa Touba Ca Kanam li ci jiitu mooy fexe ba sëriñ bi ko su ko yëgee xam ne dañ leen a dénk dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy Safinatoul Amaan sëñ Modou Lo ñu ñëpp daañu ci wax ak ñu ànd xool ba xam nu ñuy def ba lii mën a saafara ndax lii yëlluwut a dëkk bi jaaduwut kon foofu lañ ci taxaw li ci des muy gone yi fi nekk seeni waajur nañ xam ne dañoo am responsabilité bu leen yàlla dénk seenu njaboot te kat su ëllëgee danañ ko layoo ak suñu borom ndax soo ëllëgee da gis koo xam ne danañ ko xool atte ko mbiram ba léppam jag ba dara disul lu dul mu dugg ko àjjanaam ba bañ jiital ko ba mu defee ne day def àjjana suñ borom ne leen eh waqifuhum innahum mas'uluun maa lakum laa tanaasawuuna bal humul yawma mustaslimuun taxaw leen kat ndax dañ leen a dénkoon ci addina ay responsabilité faaw ñu saytu càmba xool ba xam ndax loolee ñu leen dénkoon tey jii mooy bis bañ leen koy laaj muy bisu jébbale ga nag ku ne lañ la joxoon andi ko boobaa nag képp koo xam ne seet nañ lañ la dénkoon mu ñoŋ nga defoon ci la nga ca wax def nga tàbbi àjjana du am jafe-jafe waaye képp ko xam ne lañ la dénkoon am na lu ca sikk da nga ko lijjantee sa bopp te njaboot gi wet waajur yi lañ leen dénk li feek ñuy dem ba doon ay mukallaf kon am na ci loo xam ne waajur yi lañ ci woo ñu taxaw ci njaboot gi yar leen jàngal leen jàngal leen gone bu tollee ci jàng dañ koy yóbbu mu jàng buñ koy waxee njàng moom nag ca daara ji fa lañ koy jàngale di ko fa yarale ba mu dem ba mu mat am métier mu dem liggéey loolu lañ xam lu sëñ Tuubaa loolu la woote moom la doon jàngale kon njaboot gi am na ci loo xam ne responsabilité ci seeni kilifa lay dellu seeni kilifa nañ bàyyi xel loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kullukum raahin wa kullu raahin mas'uulun an raahiyatihi kenn ku nekk ci ab sàmm la sàmm nag kenn ku ne am na responsabilité la muy sàmm bu ëllëgee moom la ñuy xal laaj ba xam jëfal na wala jëfalut kon man li ma ci li sëñ bi di sëñ bi di wax mooy waajur dong yi waajur yi ci lay tàmbalee ci ñu bàyyi xel gone yi ci yar leen jàngal leen ñi fi nekk te xëy na ay mu kàllaf lañ yoo xamante ne xañ na dem nañ ba kàllaf nañ waaye xëy na am na lu ne ci seeni bopp ba tax euh, mënu ñu di fi toog ñooñu it am nañuy bokk du juddoowuñ ci mbedd kon seeni bokk yit ñu ngi leen di woo ci ñoom it kenn ku nekk boo gisee image yi am ca mbokk nga jéem a xool noo faxe sa mbokk moomu ba teg ko ci aw yoon Touba ca kanam nag gannaaw boo xamee ne ne war na ko wax na ko sëñ bi yëgal ko ko wax cee ñi nga xam ne ñoom lañ yor dëkk bi daneen li nga xam ne yéenee ma joo xam ne yàgg na ko am ci lu image yi di génn mooy taxaw waa dëkk bi ci ñu am am xëy di liggéey loolu Touba Ca Kanam yàgg na cee xalaat te incha allahu taala dana dox jëm ci ba gone yi taxawaalu ci mbedd mi te amuñu xëy ña ca mën a amum xëy amum xëy beneen bi ci topp it Touba Ca Kanam yàgg naa xalaat ci nu muy def ba am barab boo xam ne dafay dajale ñenn ñi nga xam ne seeni xel dafa wàññiku ak ñenn ñi nga xam ne dañoo néew doole man leen di toppatoo lool it xel yàgg na cee dem donte eggaguñ ci waaye loolu Touba Ca Kanam yéene na ko kon bu ci boolee fekk si lii ñu gis tey ñu xam ne bu luy am loolu solution lay doon loolu incha allahu taala fekkoon nañu amoon xalaat bi waaye lii dana tax ñu gën a gaawal jéego yi ba mën a dëkk rawatina Touba yellu fenn te Touba la gën a yellal ndax Touba moom lu sellut yellu fi kon lépp loo xam ne sellut rek yellut ci dëkk bi kon nag nañ fexe ba mu jug fi kon kàddu yi rek la sëriñ bi waxoon nañ ko jortali di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam jërë ngeen jëf ñu ngi sant tey jégalu bu baax nag di jégalu ci image yi nga xam ne wan nañ leen ko mu tooy seen xol ba ñu bëri jàpp ne sax du lu ñu war a wane waaye lii rek lañ ci bëggoon mbokk te jàpp naa ne kon sunu xel mën naa dal waaye seen xel mën naa dal mbokk yi kon ñu ngi leen di jéggulu di dalal seen xel ne kàddu yi ngeen fi dégg kat mooy wane ne kat buntu ubbeeku na. lu jëm ci wàll xale yi na ci seen xel dal ndax ñenn ñi jël si nañ leen seen i mbokk ak seen i wayjur sëriñ ñi ci des ñu ngi leen di seet ngir delloo leen ñenn ñi it te police boobu ba léegi mu ngi fi ñëw léegi lañ leen romb ci biir marché bi. lii moom plus jamais ça jàpp naa ne du ñu fi delloosi di leen woon reportage bu mel ni bi leen maroon ndax kat ñi war a taxaw taxaw nañ te gis nga dinañ boole ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk dëkk bi ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk yu mel nii ci dëkk bi ñooñu ñëpp danañ àndandoo te am nañ ci saafara ak xalaat yu am maanaa yi nga xam ne nii Touba ca kanam a ngi koy xalaat ci wutal ndaw ñu ay xëy Touba ca kanam ngi xalaat def ay centre yoo xam ne xale bu tumuranke ñu mën la caa dal ba lu mel ni dootul mën am waaye di bàyyi xel bu baax woy jur yi kon daal mbokk yi mu ngoog ñu ngi jégalu tey indi yeneen image yuy dalal seen xel ci li taxoon ñuy wax début de solution ngi nii jërëjëf Serigne Touba